Euh, mu doon jataay yu am solo yoo xam ni boroomi xam-xam ñoo koy saytu càmbarko ko tànn ay waxtaan yoo xam ni yuy dëppoo ak jamono la ci jàngal nit ñi ak fàttali lépp lu aju seen diine waaye ci seen dunduk àdduna euh, muy jataay yu am solo yoo xam ni euh, tey ñu ngi ci namm ànd ak sëriñ Fadel bu sa Xasan ci tomb bu am solo muy almadaarisul quraaniya mushkilaatuha wa xuluuluha muy tomb boo xam ne jamono laaj na ñu waxtaane ko te mooy li yitteel daaray alquraan yi seeni jafe-jafe ak saafara seen yaakaar ci jafe-jafe yooyu ndax alquraan day lu mag loo xam ni dunduk jullit ñi ci seen àttey àdduna ak seenu jàmm yàlla lépp ca la aju ginnaaw bu mu jaar yonte bi sallallahu alayhi wa sallam fan koy jànge nag ak ña koy jàngale su amee ay jafe-jafe loolu warees nay man di fas ay jataay di ko ca jàngat ngir ay saafara am ca loolu moo tax ñu tànn ko mel ni sëriñ Fadal bu Xasan ñu miin ko ci wàll wi muy ab jàngalekat di ab gëstukat kon euh, ñu ànd ak moom ci jataay boobu ndax alquran ña koy jàngale ak fa koy jàngale lu ci nekk dafa am ay ngëneel inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun xayrukum man tax allama alqurana wa allama kon ay jafe-jafeem ak lépp lu ci aju warees na koy jàngat kon ñu bàyyi leen ak mbokk mii di sëriñ Fadel Bousso Hassane tafaddal mashkura auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yi topp ak seetaan ñoo ngi yëkkat suñuy kàddu muy kàddu nuyoo cant ak ziar ci weeru koor wi ñu nekk nuyoo gi ak ziar bi ak cant ñu jiite ci alxalifatul aam lil muridin Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan ak suñu borom yàggal ko fi motali ay yéeneem cant yi ñu teg ko ci loxol Serigne Cheikh mi nga xam ne ni mooy saytu académie yëtu mi ne ni Bakal Xadim te ñu taxawal jataay yu mel nii ci weeru koor gi. di ko def fii ci jumaay daaru minan ji di ci jokkalante ak jullit yi yenn tomb yoo xam ne laaj na leeral ak waxtaan ñu koy yokk ak leeral di sant sëriñ Maxtaar mi nga xam moom seqal jataay bi ak ci taqdim bi nga xam ne ni def na ko ak mboolem ñi nga xam ne nii ñoom lañ seqal seqal académiyatu Minani Baqil Xadim ni ko suñ Maxtaar waxee nag muy tomb boo xam ne ñu waxtaan tey almadarisul quraan yi mashakil wax loolu te mooy école wala al alquran yi jafe-jafe yi ci am ak yi yaakaar ne mën na ko saafara loolu mooy tomb waxtaan wi bu nu ko tënkee ngir tàmbali waxtaan nag dañuy dellu ci xalaatkat bu mag boo xam ne nii bokk na ci ñi doon xeex wala boog ñu doon yëngatu ngir li ñuy wax annahdatul islami te mooy renaissance islamique te mooy xeetu jullit yi nu ñuy fexee bañ mën a jogaat weneen jógin kooku ñuy wax Chakib arsalaan ci la bokk ci téeréem bu am solo boo xam ne nii mu ngi ko taalif tuddee woon ko lima sa taaxaral muslimun wa taqaddama xayruhum mooy lu tax jullit yi mel ni dañoo dellu gannaaw te ñeneen ñi di jëm ci kanam ñoom muy téere boo xam ne ni da ciy jéem a tënk sabab yi nga xam moo tax mu jàpp ne yi nañ waroon doxe doxewuñ noonu te loolu nag waxuñ ko rek ci wàttu matier gi ni nga xam ne ñenn ñi boo waxee dañ naan jullit yi dañoo avancé ci wàllu matière waaye avancé nañ ci wàllu moral ak yu mel noonu te bu ñu xoolee dëgg-dëgg dañuy gis ni ñu arrière wala boog ni ñu ñàkk doxee ci wàllu civilisation bu moderne bi itam day mel ne ci wàllu ruuxaani wàllu yëg-yëgu biir itam day mel ne noonu la manqué moo tax ñu njëkkoon arsalaan sax demoon nañ ba gëstu ba ba wax ne ñoom bañ demee fa la ñuy tudde réew yoo xam duñu réewu julit dañ faa fekk islam waaye fekkuñu fa ay maanaam mooy melokaan yi lislaam bëgg ci nit ki ci wàllu jikko ak melokaan fekk nañ ko ci ñoom waaye nañ ñoom amuñu lislaam bi ñëwee fii ci réew yi ñu tudde réewu julit nag dañ fay fekk ay julit yoo waaye fekkuñu fi lislaam mooy fekk nañ yoo xam ne nii julit lañ leen waaye jikko yi wax tax tax ñu wax julit yi ci bare bari boo ko boo ko seedee doo ko fekk ci ñoom kon loolu dafay tegtale ne ni ñu ñàkk a doxee ci wàllu matière ci wàllu yëngu-yëngu yi nga xam da ngay làmb di ko deg noonu dem la ñàkk a doxee ci wàllu jikko yi ak melokaan yi loolu moo tax Arsalan defoon lu mel noonu moo tax Arsalan nag bi mu dënkee loolu dafa ne moom sabab si mu jàpp ne moo tax jullit yi mel melokaan wi ñu mel ci jamono ji ñu toll nii dakoo koo tënk ci ñaari baat mooy jaamit ak jaaxit jaamit mooy ku way jaaxit mooy kuy wedd kon ki muy njëkk mooy groupe bu njëkk bi te mooy ñi nga xam ne dañoo way mooy ñi nga xam ne dañoo gis ne dara wërta soppi ko ñoom dañoo gis ne lépp lu baax lépp lu rafet lépp lu yell dañ koy fekk ca dundu mag ña mag ñu njëkk ña waaye amul leen lañ ci war a yokk kon ñun ñi ñëw seen gannaaw ñu war rek mooy topp leen te topp gi nekk topp goo xam sax duñ ci a soppat dara waaye nañ doon doxee rek noonu lañ koy bàyyi duñ ci soppi dara loolu mooy groupe bu njëkk bi te loolu ku nekk xam na ne buñ ñëwee ci kanam dana leer la muy jur beneen groupe bi ci topp mooy ñi nga xam ne ñoo gëm ne ñoom lu weesu woon daanaka dara baaxatu ci lépp dañ koo war a bàyyi. nga xam ne dañoo gëm ne lépp lu jëm ci wàllu développement wàllu avancement dox jëm ci kanam buñ ciy waxtaanee nañ xool li modernité indi rek ñu jéem koo jëfandikoo waaye nag lépp loo xam ne dañ fay fekkoon moom dañuy gis ne amul benn maanaa ci wàllu développement ak wàllu civilisation bi ñu dund nii. kon ñaari groupe yooyu nag Arslan def ne bu fekkente ne jullit yi mel nañ melokaan yi ñu mel ñoom ñaar ñu ñoo ko waral ndax ku ci nekk da ëppal da nga ëppal ci wet ga nga jëm leen manqué kon ñoom ñaar ñëpp mooy lañuy wax mawdu wax yi mooy objectivité mooy mbir mi ni ñu koy gisee nga jàngate ko noonu ni mu sa kanam nga jàngate ko noonu moo xam nam mel neex na la wala neexu la waaye nga wax ko na ko gisee loolu mooy objectivité loolu nag dafa mel ne moom manqué ci ñu baree ba ndax boo xoolee la jiitu woon am lépp lu bari baax na ca waaye am na ci loo xam ne tam du maanaam jamono moo ko laajatul wala boog si na ko mën a soppi li ñëw di lu bees li ci bari moom baaxul li ci bari sax maanaam dañ ko war a teg fële ndax li ci ëpp am na yeneen ci jaxasoo yoo xam ne nii neexut a lay neexut lay ba mu set neexut a segg kon dafay mel ne Maodo wax yëgoog te mooy wax joo xam koy teg ci ni ko gisee noonu rek mooy li manque jullit yu baree bari ci bu ñuy waxtaan bu ñuy waxtaan danga gis ku nekk fa nga féete day fés ci wax ji ba na nga waroon na xëy na analyser wax ji ak na nga ko waroon a leerale dana mën a des moo tax kilifa gu mag goo xam ne nii ci njaboot gi la bokk njaboot sëñ gi la bokk da koy faral di leeral nee na ñun suñuy munaqasaat suñuy discussion maanaam suñuy waxtaan ci mbirum xel xalaat tàmbali bi ci xel xalaat lañ koy def waaye bu ñu doxee tuuti nee na da ngay gis xëccoo da ciy dugg bu ñu doxee tuuti xuloo dugg ci nee na bu ñu doxee tuuti loxo yi jóg di topp ca kon nga gis ne loolu la koy jur na mooy ku nekk da ngay taxaw position bi nga taxaw dangay jàpp ne loolu rek moo wér te keneen ku keneen gi lu mu wax loolu dara wér dañ ko war di teg fale loolu nag du mawdon ya loolu nag arsalaan noonu la waxee ne kon ñaar ñooñu ñooñu la jàpp ne ñooy tax jullit yi melokaan wi ñu mel tey ñu mel ko loolu nag day leer nañ bu ñuy waxtaan ci werum mbirum daaree alxuraan yi ci ñun day gis ñaari groupe yooyu dañ ciy feeñaat ci biir da nga gis koo xam ne nii moom day gëm ne daara yi ni mu mel na meloon bañ ko sompee ba léegi noonu lañ ko war a bàyyi kenn waru cee laal dara kenn waru koo soppi te ñaar la mu wax it du ko teg ci lu mën a convaincre nit lool lool ci wàllu xel xalaat waaye day gën a sukkandiku ci sentiment nit ñi wala boog yëg-yëg nit ñi biir ñi maanaam ñeewentum nit ñi moom lay jéem a jëfandikoo ngir wan ñi ne leen ñii dañoo bëgg yàq li fi mag ñi bàyyoon te li fi mag ñi bàyyoon dem ba mu yàgg jëfandikoo di ne di di la xupp wane ne la boo ñu laalee nangam ak nangam dig jëfandikoo doole joo xam ne nii bëgg laa bëgg laa xupp ba doo ñemee wax ceef yooyu te xupp nag ak jëfandikoo ay sentiment nag amu ci lenn loo xam ne nii maanaam lu convaincre borom xel lay doon kon nag gis nag groupe boobu mooy ñi nga xam ne ni ci wàllum daar dañoo gëm ne ban ko sampee ba léegi nam doon doxi kenn waru cee dugal soppi kenn waru cee dugal xalaat dañ ko a bàyyi mu tëddee noonu ñooñu tam ku nekk xam ne loolu tam àdduna mënta doxee noonu beneen groupe bi nga xam ñooy ñi nga xam dañoo gëm ne weddikat yi mooy ñi nga xam dañoo gëm ne kon daaree ñoom dañoo jàpp sax ne léegi système la boo xam ne nii dañoo jàpp ne mën naa am dem nañ ba mën a wax ne jamono weesu na ko ñooñu it wedd gi ñuy wedd taxawaayu daare yi ak tuutal gi ñu koy taxawal tuutal moom itam léeg-léeg duñ ko teg ci lu xel mën a nangu waaye léegi dañuy sukkandiku ci ay tuuma yoo xam ne nii dañ koy tu laxas ci daara yi te yoonu daara yi niwu ci maanaam dara ci tuuma yooyu ay tuuma rek la yoo xam ne dañ koy ci kaw daara yi waaye dara wéru ci am ci ñoom ñoo xam nit opposé goo ñu opposé ci wàllu daara yi lu ñu leen imposé la yoo xam ne ni dafa jógee feneen dal ci seen kaw mën naa am ka leen koy def defloo sax bokku ñuy bokkuñuy pas-pas bokkuñuy cëslaay ñu dara waaye nag comme moom gis na ne loolu arrangé wu mu fexe ba jëmbat leen ñoom ñuy contre daal duñ ko teg ci kon na nga gis ne ñoom ñaar ñëpp ñaari groupe lañ yoo xam ne nii ñenn ñi dañuy dañuy nga xam dañuy bëgg sàmm la fi newoon rek dara du ci soppiku loolu xel léeg-léeg du ko nangu ak ñi nga xam dañoo bëgg wedd la fi newoon lépp wane loolu dara baaxatu ci loolu tam xel du ko nangu moo tax kon nag bu ñuy waxtaan ci mbirum daara yi war nañ cee gën a sàmmanteeg mawdu gi ñu waxoon léegi te mooy objectivité gi maanaam ñu xool jàngat ko ci njàngatum xel moo xam ne ni dañ koy jàngat nañ ko gisee boo ko defee daañ mën a xool li nga xam ne nii jàpp nañ mooy li ci liñ ci war a téye ko soppi ak li nga xam jàpp nañ ne war nañ caa dugal ay sappat war nañ caa dugal yeneen xalaat loolu mooy li am solo ci liggéey bi loolu itam lañ xalaat def ci li ñuy bëgg a xam ne def nañ ci daaree lu mat daanaka ñaar fukki at ak nangam ñu bari ci ñun sama classe ñu def ci daaree alxuraan lu mat ñaar fukki at presque wala boog nekk ci daara am ñaar fukki at ak nangam ñu bari bari ñun def nañ ko am na ñun ñoo xam ne nii mokkal nañ bañ fay jóge am na ñun ñoo xam ne mokkaluñ kon nag ñun ñu def lu mel noonu ci daara war nañ cee mën a toog xalaat ci baax a baax ndax ku nekk xam na ne boo defee lu mat ñaar fukki wala boog nekk ci daara am ñaar ak nangam soo mokkalee alxuraan jariñoo nga fa lool lool. ndax ku nekk xam na ne mokkal alxuraan ci jullit maanaam mënisu koo natt ci kon boo ko mokkalee jariñoo nga fa lool lool. waaye nag ñun ñëpp xam nañu ñi mokkalut ak ñi mokkal ñëpp it xam nañu am na luñ perte ci daara ji te mooy ñaar fukki at ak nangam foo ko def ba jóge fa bu fekkente ni mokkal nga da nga gis ne def nga fay at yu baree bari yoo xam ne nii mën nañoo wax ne daanaka danga nga koo perte sa dund. ndax mënu ngaa mokkal alxuraan te diir bu toll noonu doo ko fa def kon at ya ca des nga xam ne nii dacaa tegu te nga mën ko faa bañ a def mën nga ko def ci leneen loolu nag la muy jur mooy kon waxtu dafa cher ci doomu aadama ndax nit li am waxtoo moo ci gën a cher kon la nga ciy perte muy ñaaraat ñetteetul am nangam al muhim mu ciy nekk ci waxtu te nga mënu ko gañe ci leneen loolu pertement lay doon kon ku nekk xam na ne ñi nekk ci jóge ci daara yi yàgg ci lool ñenn ñi mokkal ñenn ñi mokkalul ku nekk am nga loo jariñoo waaye am nga loo xam ne nii perte nga ko ci diggante boobu nga moom nga def ci daara ji foofu. mu doon loo xam ne ni kon ci système bi lay dellu si ndax war na noo mën a xool ci misaal tey àdduna fi mu toll léegi nit ki feral ko ijji rek nga bëgg cee def lu matum at wala wala lu ko jege ci ijji basin mim ak ijji ba mu fer ijji cee def lu matum at. door a door a loolu itam defe naa ni temps la boo xam ne nii mat na ko mën gën a gàttal. yaakaar naa ne itam jàngal nit ki ba mu mokkal alxuraan ba noppi nga door koo tool xoola jàngal nag nu muy defee li ñuy wax maxaraj maanaam nu muy prononcé baat yi muy wax nu muy génnee araf yi. ak ni njàng mu njàng mu dëppoog nañ ko gën a bëggee loolu itam naa ne waris na ko mën a xoolaat ndax loolu itam ay jafe-jafe lay jur yoo xam ne nii. nit ki dana dem ba àgg ci tàmm jàngin woo xam ne nii pour mu soppi ko sax dootu dootu yomb nga gis ne kon loolu tam beneen la ciy defaat moo tax da nga gis ku jàng ba ba mokkal ba mu noppi la da ngay beq ci misaal beq bi nga war defaat ay wala ñaar at wala ñaar ëllëg ëpp loolu lay jël boo xam ne nii buñ ko defoon ci départ ba mënoon naa bañ a àgg fu mel noonu. gisin ne léeg nga gis koo xam tam dañuy jàng ba alxaan ba mokkal door commencé tàmbale jàng bind bind nii moo xam ne bind ci àll wala bind ci kayit ak door a tàmbale jàng itam nu ñuy bind alxaan xam ngeen alxaan du jàng da ngay a bind arab rek mën koo bind baat yi dafa am bindin woo xam dañ cee dëppoon nii lañ ko war a bindee ñu jàngal alxuraan nga def ci at ba mokkal ko ba pare nag nga door a wëlbatikuwaat rek nga defaat ci bu yàgg defe naa ci système bi li ñu xoolaat ci la bokk. léeg xam dañ koy jàngal at yu bari bari ba mokkal ba noppi ñu door ko dalal xam-xam loolu tam nga gis ne maanaam lu bare bare mën na koo faat ci wàllum xam-xam te loolu buñ xoolee ci daara yi dañ koy gis am na lu ñu tudde kaang mu jigéen ci misaal mooy ñoo xam dañu mokkal alxuraan lool mokkal gi day rafet waaye nag seen wàllu diine daanaka duñ ci xam lu bari loolu xëy na bu njëkk la gënoon léegi mi ngi wàññi waaye ba léegi mi ngi am ñoo xam dañ jàng ba mokkal waaye nag xëy na diir def ci daara ji bu fekkoon ne dañoo wàccoon tey dañu dalal leen ci xam bi daañu te li ñu war a xam seen diine gàtt-gàtt daañu ko xam waaye nag su fekkee dañu laa jàngal ba pare nga def diir bu yàgg ci daara ji ba noppi ñu door laa bëgg a jàngal xam-xam mooy tax ñu bare bari ci ñoom xam-xam boobu bu ñu waroon xam seen diine di leen di leen di leen di leen faat ci système yu bees yi gis nañ ne nit ki di ko mokkal loolu loo xam ne ni xamu ci dara lu muy tekk lu muy lu ko tax a jóg loolu itam léeg-léeg dana tax mokkal gi dana jafe ci moom te it dana tax du sawar ci la muy mokkal moo tax léegi njàng mi bees wax ne la même leçon bi nga bëgg xale bi mokkal ko même boo ko firul tam war nga ko cee jox ay xalaat ay benn benn ba mu xam ne daal am ci ay idée ba nga xam ne dana xam lii ci lu mu jëm lu ko tax a jóg loolu itam defe naa ne lu ñu mën a xoolaat ci la bokk ñu gis ne daañu gis ne bari na lu ñuy jaxase lool diggante yar ak metital ci biir daara alxuraan loolu itam defe naa ne jot nañu ràññeel nit ñi ne leen yar mooy defar doomu aadama ndax tarbiya mooy mooy mooy defar doomu ak mettital nit dañoo jege waaye bokkuñu te ci wolof xëy dañ naan yar bañ na ko ba tudd yar te tarbiya ci arab bokkatu ko yar bi ñuy dóore ci ci ci wolof xëy na baat bi la ñuy firee yar waaye da ko tax a jug dëgg-dëgg mooy defar nit kon defar nit ki ak mettital ko loolu itam dañ koy jaxase léeg ci biir daara bu ñu doon xool itam li ñu wër ci àdduna bi mën nañ cee jariñ am na réew yoo xam ne tey ñu ngi mokkal alxuraan nañ ko war a mokkale am ay daara alxuraan yoo xam ne boo fa duggee xale yi sax fa la ñuy gën a saware nekk ci dem ci école moderne yi maanaam école yi ci des ndax barab ba nan koy defaree ak ñi jëf jëflante ak ñoom la ak ñoom ak nan fay nekk nekk waaye baag yëpp da leen di neex ba daanaka moo leen daqal foofu ñu dem ci yeneen école yi loolu tam defe naa ne na cee mën a jariñu ndax yu baree bari ñu ngi daw ci daara yi ba ñu njàng conditions yi ñu ci daara yi moo mettit ci ñoom ba nañ koo supporter moo tax ñuy daw waaye am na nu ñu ko doon defaree toppatoo ko xale bi sax bu fu jógee dootu fa bëgg génn loolu tam war nañ cee mën a jariñu ci dëkk yi nga xam ne ni ñoo ñu wër tey mokkalu alxuraan ci diir bu gàtt ba noppi teg xale bi ci condition yoo xam ne ni dana am ci moom solo kon yëpp xeeti ay taxaw seet yoo xam ne ni buñ ko defee mooy xoolaat suñu bopp gën a nafaraat suñu bopp xool li nga xam ne nii mooy li sax te mënta soppiku ñu nangu ko waaye li nga xam ne nag moom saxut mën naa soppiku te war a soppiku jéem a seet nun ko soppee ndax bu ñoon xool daar alxuraan ni li ci sax lenn rek la nga xam mënta soppiku mooy mokkal alxuraan mokkal alxuraan bu noppee nekk ci daara yi moom daara amutu taxawaay bu muy taxaw kon loolu mu kenn mënu koo génne ci daara yi kon mokkal alxuraan moom mënta ñàkk ci jullit ñu koy def te daara yi ñoo koy def donte fard kifaaya la xëy na mooy mooy booloo xam bu ko ñenn ñi taxawee te mën ko mën naa am ñu wàcc ca des kon li sax ci daara moom mooy mooy mooy mooy mokkal gi jàng alxuraan ba mokkal ko waaye nag nañ koy jàngee conditions yi ñuy teg xale yi ak ya ci aju yëpp moom lu mën di soppiku la su fekkante ne gis nañ yoon wu ko gu gën a bu gaaw te gën a jàkk gën a rafet mu gisee bu ñu gisee méthode boo xam ne nii moo gën a efficace war nañ koo mën a jël ndax maanaam yoon weeg ni ñu teg xale bi moom lu mën a soppiku la nekk loo xam dafa sax bu ñuy xool nag dañ gis ne eh, maanaam jàngal ko alxuraan yu baree bari wala boog ñu yor daara ñu baree bari fànn boobu ñu ngi ciy liggéey bu baax ci dugal ñu ñu ngi koy jéem a gën a améliorer di jéem a defaraat waaye nag ba léegi nag ñu ëpp ci ñoom ñoom dañoo mooy rek ca lañ ne woon ne lépp luy xeetu moderniser moderniser jëm ci daar yi moom nanguwuñ ko dégg loolu nag ba léegi dafa am groupe wala boog ñu gën a bari ci ñoom foofu lañ taxaw ba léegi donte am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ci def ay jéego yoo xam ne nii ñëpp a ngi koy rafetlu moo tax kon ci waxtaan wi dañ jéem a xool tënk jafe-jafe yi ñu ko noonu ko noonu ko noonu ñu ko laytaayi noonu dañ ko tudd par benn xëy na bu nekkee ñu xool liñ jàpp ne mën na am solution boo xam ne nii euh, buñ mën naa am buñ ca jaaree xëy na da danañ ci mën a am xay na liñ ci waxee na ñu koy sukkandiku ci suñu dégginu bopp ak niñ dunde ci daara yi liñ ci dunde ak liñ ci def moo tax problème yi buñ ñu koy def dañ koy xaaj ñetti xaaj maanaam problème yu mag yoo xam day amaat ay problème yu noonu waan yu duggaat ci biir bi ci njëkk mooy jafe-jafe ci wàllu mën haj manhaj bi bu ñu koy wax léeg-léeg day jafee firi ci yeneen baat yi ndax day léeg nga dégg ko firee programme te manhaj moo gën a yaatu programme moo tax li ñuy wax curriculum moom lañ koy gën di firee baatu curriculum nag wax dëgg gëstu nañ gëstu nuñ koy waxee ci wolof waaye gisaguñ ko xëy na bu keneen xamee tam mën ñu jàppale waaye daal manhaj mooy curriculum maanaam day day dugg ci biir li ñuy jàngale day dugg ci biir yoon wi ñu koy jàngalee day dugg ci biir maanaam façon bi ñu koy jàngalee itam day dugg ci biir ak yoon wi ñuy jaar ba def ko ci xale bi lépp day dugg ci biir ak ak muxtawa maanaam maanaam madd moon wala ba contenu bi nga xam mooy ne ci biir yëpp ak ahdaaf yeeg yëpp day duggaale ci biir loolu mooy manhaj mooy curriculum ci yenn kii beneen bi ci topp mooy moom buñ ko xoolee dañ gis ci moom ay problème yi noonu dawaa ni nekkaat ci biir jiitu mooy yoon mi ñuy jàngale ak ni ñuy pratiquer njàng mi ak métital gi dugg ci biir njàng mi ak avenir xale bi jàng loolu yëpp bu ñu demee ci biir curriculum bi dañuy gis ne bu ci nekk am na jafe-jafe danañ ko tudd beneen bi ci topp muy problème bu mag bi mooy organisation bi ni ñuy nose moom bu ñu xoolee danañ gis ci biir yeneen jafe noonu yi noonu dugg ci biir mooy léeg-léeg bi ñuy gis ci kii bi nga xam ne nii ub ni ñu ubbee daara yi nga xam daanaka du tegu ci du tegu ci lu leer lool lool ak yeneen yi nga xam dana ci yow moom daan ci ñëw beneen problème bu mag bi nga xam ne dañ ko jël tam mooy nu ñuy financé daara wàllu xaalis bi fu ñu koy jëlee ki ciy jàngale nu ñu koy toppatoo ci wàllu xaalis élèves ya fay dund nu ñeen di dundale ak li war ci daara ji tam noonu fexe ba man ko am loolu tam ci jafe-jafe yi duggaat ci biir muskila tam bi tam yi tamay problème financement bi ci la bokk. kon yooyu mooy ñetti jafe-jafe yi nga xam ne nii yu mag la xëy na day am yu ndawaat yu duggaat ci biir benn bi nga xam moo jëm ci wàllu bi mooy mooy programme bi wala mooy manhaj baat bi. kon manhaj bu ñu ko waxee ci baat bi li jub dëgg-dëgg mooy day day làmboo ci biir programme bi ngay jàng waaye itam yoon wa ngay jaar pour jàngale ko waaye itam programme bu nekk wala boog curriculum bu nekk boo koy teg ay laaj lay tontu il faut que da ngay teg say laaj boo tontee laaj yooyu ci ngay sukkandiku ba teg maanaam manhaj boobu mooy kan nit ban façon nit laa bëgg a defar maanaam ki ma bëgg a génne fii bu noppee nu ma bëgg nu mu mel ko moom su noppee yan yan yan compétence yan capacité lay am yoo xam ne ni moom laay xaar ci moom bu ëllëgee mu mën ko am ak yu mel noonu laaj yu mel noonu boo ko laajee ba noppi nag ci tontu ki ñu koy tontu nag ci ngay mën a tege natt maanaam manhaj bi nga xam ne nii ci ngay jaar wala ba curriculum bi nga xam ne nii ci ngay jaar foofu nag bu ko xoolee dañuy gis ne am na jafe yu baree bari yu ci biir bi njëkk mooy euh, liñ jublu ci maanaam manhaj bi ci boppam tax koo leer lool lool ndax dañoo gis ne programme wala boog curriculum la boo xam day doxe benn wet day doxe benn tànk ndax boo xoolee nit ni ko yàlla binde mën nañu tudd mën nañ ci xaal ne personnalité doomu aadama mën nañ ko xaaj ñeenti xaaj am na loo xam ci xel mi la jëm am loo xam ne ni ci maanaam ci yëg-yëgu biir bi la jëm te mooy nafs bi am loo xam yaram bi la jëm am ci loo xam ne ni ci social côté social bi la jëm waxuma laak nag maanaam capacité wala compétence yi nga xam moom la ñuy séntu ci xale bi buñ ëllëgee mu am ko yëpp day mel ni bu ñuy xool ci ni ñuy ni ñuy saytoo suñu daara yi alxuraan yi day mel ni yooyu duñ ci bàyyi xel lool lool ci bu ñuy teg programme ndax mën nañoo fexe ba xale bi mokkal te loolu xel rek la mokkal moom ci xel rek la kon kon defar nga xel ba mokkal alxuraan waaye nag yeneen côté yu bëree bëri da ngay gis ne des na loolu yaakaar naa boo gisee léeg-léeg ñu naan nitu daal yi di ci wax yenn yi maanaam sàggan gi ñu sàggan yenn partie yi nga xam ne mooy composante personnalité doomu aadama loolu moo koy faral di waral ëllëg it xale bu génnee lu muy man yenn compétence lay man ci wàllu dund nga xam ci lay mën a sukkandiku ba dund loolu itam léeg-léeg duñ ko bàyyi xel buñ koy waxtaan nag léeg nga gis ñu bari ñu koy layal naan la moo ne réew mi boo xoolee tey eh, maanaam homme d'affaires yi gën a mag ci réew mi ay nitu daara lañ loolu dëgg la nangu nañ ko wala boog bari na ci am na ci ñu bari bari ñoo xam ne nii ci daara lañ génne tey yor nañ ay entreprises yu mag a mag yor ay sociétés yu mag a mag nekk ay homme d'affaires mag a mag loolu kenn kenn wérantuwu ko waaye nag am ci wàllu mantiq wàllum logique li ñuy tuddee awhaamul jins euh, loolu nag day nekk ci nit maanaam ni yàlla moo ñu nit léeg-léeg yow bu fekkee da ngay waxtaan li nga xam ne nii mooy dëgëral sa position rek moom ngay tudd waaye li nga xam ne nii boo ko tuddee mën naa am mu nuru ne day day contre la nga doon wax doo ko tudd te loolu nag xel nangu ko maanaam bu fekkee da ngay waxtaan ci mbir da ngay tudd yi nga xam ne ni day appuyé da lay dëgëral ak yi nga xam ne nii maanaam nekkul ci sa li ci nekkul ci maanaam nekkul sa côté nekkul sa wet bu ko defee kiy déglu nag mooy màndaxe bu màndaxe xool li nga li lay dëgëral ak li lay lay néewal doole moom màndaxe ban moo ci doole mu door a jël waaye fekkee da ngaa topp rek di tudd yow li nga xam mooy dëgëral sa position yaa ci des doo ko doo ko tudd ki lay déglu du mën a am position bu leer nañ loolu bu ñu ci joxe misaal mu gën a leer boo xooloon tey lii ñu tuddee pajum cosaan garab yi misaal rek la ci léeg-léegi da nga gis koo xam garab gi jox naa ko diw ak mu wér mën na laa limal lu mat fukki nit yoo xam danañ ko jox ñu wér waaye am na lu mat junni nit yoo xam danañ ko jox ñu jaar jafaatu di ñooñu moom du leen tudd te bu leen tuddoon léegi da nga mën a yow da nga mën a daal di màndax ba xam lii maanaam ñi nga xam na ci wàllu xaalis ñi ci ëpp ci daara yi lañ génne waaye nañ wax maanaam ñiy dund ci des bu gaaw yooyu itam ñi ci ëpp ci daara yi lañ génne maanaam ñu bare ba ñi nga xam koy dundee ñooñu tam ñi ci ëpp ci leen formé loolu nag kon dañoo war a màndaxe ndax bu ñu xooloon tey néew maanaam fi ne tey bon xoolum d'affaires yi nga xam ne dañu mën a tudd mën naa am ay téeméer la ñu doon wala bu bëree bëri ay junni te daar yi mën naa am ay millions la formé kon yeneen yi des yëpp lim bi ci des day mel na ci ndesitu yooyee ci la ñu dund te loolu def naa taxut nuy wax bu kii te ñu bari ñoo ñuy tudd itam duñ bàyyi xel ci ne lañ yor ak lañ man tey génnaale wuñ ko ci daara ji wax dëgg yàlla ndax amul fi nekk nii ci daara yi ñu xamaguñ ñun ci benn daara joo xam ne nii dalay jàngal nooy monter entreprise wala nooy saytoo commerce sa commerce sa sam njeexantum njaay noo koy saytoo maanaam gisaguñ yu bare bëri yoo xam ne nii danañ koy def gisaguñ tam daara yu bare bëri yoo xam ne nii daañ la jàngal boo boo génnee nooy defaree bunt wala nekk menuisier wala nooy nekk maçon yu bëri daal la ñuy la ñuy xantewoo lépp mooy na nga mokkal alxuraan boo ko mokkal ñoom seen jaan wàcc na loolu la ñuy wax kon nag ñu ñuy tudd léeg-léeg dëgg la ñu bari jaar nañ ci daara waaye nag am na loo xam ne nii ñoom it dañoo dem ba génn ba noppi dem wutiwaat ko feneen door caa mën a kii moo tax kon loolu il faut que ñu xool ko xool boo xam ne nii dañ day dëppoog lu xel nangu te mooy ñu xool programme bi li ci manqué wala curriculum bi li ci manqué ñu jéem ko ci dugal kon mu kaw wi naw la composante yi nga xam mooy composé personnalité nit ñu seet bu nekk nu ñu ciy dugalee nit ñi ñu ngi ciy dugal koy dugalee ci biir euh, daara ji bu ko defee nit ki bu génnee nekk nit koo xam dafay dafay mat ci fa wala boog daal day dana xaw a mat ci fànn yu bari donte doomu aadama du mat te loolu mën naa nekk. boo ci yoon wi itam yi nga xam ci jaar ba jàngal xale bi dañuy gis ne yoon wi dafa taq maanaam dafa taa dafa dafa dafa dafa cosaani bu dafa cosaani te nag muñ ko sopp benn yoon. mooy li ma waxoon ci tàmbali bi léegi maanaam boo xoolee tey ba miim nga def ci nangami weer wala wala weer wala nangami weer door faa jóge ñëw aba nga def ci nangami weer loolu nga gis ne wax dëgg yàlla méthode yu bees yu bare bari gis nañ ne yooya waris na koo mën a gën a gàttal te waris na cee mën a jariñ nga yokk ci nag xale bi nga di ko jàngal araf yi araf arab yi amul benn bu ci bu ci bokk ak morom ji ndax bu ci nekk daa am nun koy nun koy nun koy nun koy tuddee nun koy prononcé kon jërul nga ciy sonn ci misaal bi ñu ñu jàngal li liif gu dog ak ay ndigal ci yooyu alkubeer ak yooyu fi la baat yooyu bokkuñu maanaam dañu bu ñu jàngaloon xale bi baat cosaan du bokk siin ak siin bokkuñu kon jërul nga naa ko siin su am tomb ak siin su wow daanaka da nga yokk xale bi lim lim waroon xam da nga koy da nga koy yokk fi ne boo ko noonu siin ak siin rek fu nga ko gisee dañ leen xàmmee ayin ak xaa ra ak mën nga leen daal di ràññale xaa ak xaaf yow man ngi daal di ràññee nga koy wax maanaam yu mel noonu bu ko defee kon boo ko doon jot jox dañ koy prononcé ci départ bi moom da koy daal di tàmm mokkale ko noonu bu ko defee doo ko sonal ci yeneen yu bëree bëri yi ngi ciy yi ngi yokk yoo xam ne nii day jël ci xale bi lu bëree bëri doo ko bàyyi xel ndax mooy tax xale bi ferug di xaw a yeex yooyu nag boo ci yokkee yi nga xam ne ni nag mooy léeg-léeg itam xale bi ay jubluwaayam duñ ko faral di bàyyi xel te loolu itam dafa am solo mooy xale bu nekk buñ la ko ëndalee war ngaa mën a xool xale bi jubluwaayam dëgg-dëgg ndax ndax fi ne bu dee jàngal ko dëgg-dëgg da ngay xam xale bi ndax su ma ko soo ko dalal rek da nga xam ba xam kuy mokkal la wala du mokkal daanaka da nga daal di mën kii bu ko defee wóor nañ la kii fekkente ne nit la koo xam amul xëy na jàppuñ ne kuy war a mokkal la ñu seet la gën a gaaw ci moom ñu defal ko bu ko defee mën a am ci yeneen côté yi loolu tam da ci am solo loolu lépp day dugaat ci biir curriculum bi kon ci yoon ñuy jàngalee boo ci yokkee nag léeg-léegi méttital méttital gi ñuy jëfandikoo te léeg-léegi sax du tegu nag ci duñ ko mën a layal ci wàllu xel xalaat ndax bu fekkee ne da ngaa jàpp ne xale bi dóor rek moo koy faj bu taree mokkalul nga dóor lu mu def rek maanaam boo bu xoolee baax sax nga jërëjëf dóor loolu itam ñàkk jaxasoo gu jaxasoo defar yar tarbiya ak ak ak métital ñàkk leer gum ñàkk leer suñu bopp moo tax ñu koy def lu mel noonu moo tax ñu léegi da nga dégg ñaan la yar moo bañ na ko ba tudd yar moo tax daara yi bëree bëri dañuy dóor maanaam dañuy jëfandikoo métital bu mujj sax am ci juddoo yoo xam ne nii Euh, ay ay accident ay accident lay doon yoo xam ne nee ci biir daar yi ñu xam ko ñëpp xam ko te loolu jaxase gu ñuy jaxase diggante yar ak métital la nit ki mën nga koo defar ba mu baax te doo ko métital mën nga ko jàngal ba mokkal alxuraan mokkal bu rafet te doo ko métital loolu yaakaar naa ku ku xool yeneen réew yi ni ñuy jàngale alxuraan ak niñ koy niñ koy toppatoo defe naa ne dina ci am kii te loolu da ngay gis ne dañoo topp dañuy topp ba yu baree bari ci dal fan yee passé rek gis naa Italie ñaari sëñ daara yoo xam ne dañ faa nekkoon jàngal alxuraan ñu tëj daara ja téye woon leen te la ko waral mooy jëfle guñ doon jëfle ndax xale yooyu yenn réew yi nanguwuñ ko ndax yooyu boo ko defee xëy na ñu ko nangoo ñun yeneen réew duñ ko nangu kon nag loolu tegtal la ci ne si naa mën a xoolaat eh, loolu diggante mettital bi ak defar nit ki yokk ci tam nag avenir xale bi bu ñu la ko indilee moom xale bi tam dangaa war a xool li koy jariñ ëllëg dëgg la mokkal alxuraan gi lu am solo la waxoon nañ ko ci njëlbeen gi waaye itam ëllëg xale bu mokkale alxuraan bu ëllëgeen la muy war a mën a sukkandiku ba mën a defar wàll gi ci des tam dañ ko war di bàyyi xel tey boo gisee tey ñi ñi ñi ñi ñi yëngut ci daara yi bari di gën di bari maanaam jàngalkat alxuraan yi bari loolu ba ëpp sax léegi maanaam nga xam léegi dañoo bari ba daanaka léegi dañuy gis koo xam day bëgg daara ju mu jàngale mën naa toog at di ko du ko am ndax dañoo ndax dañoo bari léegi li koy waral mooy léegi daara le léeg-léegi boo ci nekkee dañu dul formé ci yu baree bari bu ko defee boo jàngee bu mokkal nag da ngay mokkal alxuraan ba pare gis ne yoroo benn compétence ci wàllu professionnel wàllu métier boo xam da nga ko mën a def te ñu bari dañuy dem gis ne jàng métier xaw na leen a faat ndax seen at xaw naa bari ñooñu kon la fa sës rek mooy ñu dellu ci daara ji nekk ay jàngal alxuraan donte am na ñoo xam bëgguñu ko am na ñoo xam ne ni bëgguñu jàngal alxuraan waaye amatuñu leen ñu def ñu ñëw wiiri ñëw ci daara alxuraan te loolu nag ku nekk xam ne li muy jur nit ki buy liggéey te liggéey bi muy liggéey gënalu ko ku nekk xam na la ca mën a juddoo kon yooyu yëpp dafay delluwaat ci wàllu curriculum bi ñu gën koo xoolaat defaat defaat ci ay gëstu yooyu yëpp ñu mën koo dugalaat ci biir xëy na na kon lañ koy mën a solution rek mooy ñu toogaat xoolaat maanaam pro maanaam curriculum mën nañ boobu ci daara yi bi si faxaama nu xool ko xool it nuñ ciy dugalee maanaam yi ñu waxoon léegi yi nga xam mooy nekk ci personnalité nit yëpp nuñ ko ciy mën a dugalee ba xale bi mën cee gis boppam bàyyi xel itam avenir u xale bi xool su ne mën na noo fexe ba formation professionnelle di dugg ci biir lu man ko ciy dugal fexeet ba maanaam maanaam yokk-yokk yi am ci wàllum pédagogie nu xool nun koy nun ko ci nun ko ciy jëfe bàyyi xelit ne amul benn relation amul diggante mokkal alxuraan ak ak tuumuranke nga xam ñu bari ñu dañu jàpp ne nit ki balaa mën a mokkal alxuraan daa war a tuumuranke loolu amuñ benn relation léeg-léegi sax tuumuranke day nekk gàllankoor ci mokkal alxuraan na ñoo xam ne nii nekk nañ ci daara yi li ñuy wax bor nga xam ne nga dema dem ba dootoo mën a mokkal far ndax métti métti bu ñu lay teg nga dem ba sa xel day dem ba dootoo fa mën a nekk loolu loolu moo koy indi kon ñu bàyyi xel ci ne méttital nit ak ak ak ak ak mokkal alxuraan jotewuñ dara te loolu defe naa sëñ bi jàngale woon na ko ci ba muy joxe yéen ci njabootam te buñ buuñ buñ buñ buñ buun buñ saalañ buñ buñ buun buñ saalañ ak buñ jagam loolu mooy tuumaraange mooy buñ tuumaraange rek ci tënk kon loolu ci la bokk bàyyi xel it ne maanaam xale bu nekk suñu bor am na lu mu la mooñaale am na fu mu la mooyal te xale boo leen xoolee rek da nga daal di xam seen i seen seen i jublaay ñu si bari da nga mën a jàngat ñoom lu bari bari loolu tam defe naa ne ku yàgg ci daara yi yàgg ci wàllu yar ak jàng jàngale mën nga cee xam lu bari kon loolu mooy jëm ci wàllu programme bi wala ba wàllu curriculum bi bu ñëwee ci beneen problème bu mag bi nga xam moo ci topp te mooy wàllum organisation bi nu ñu koy nose defe naa ne yaakaar naa ne moom ñi yëngut ci daara yeeg ñi taxaw di ci xool ak ñëpp yaakaar naa bu amee lenn loo xam dëppoo nañ ci mooy ne wàllum organisation manqué na ci biir daaray alxuraan yi donte ni ma ko waxoon ci départ bi nag ñi ngi rafet lu baax am na ci effort yu bari yoo xam wax dëgg yàlla ay nit da ko ciy def di nos seen bopp di jéem a waaye nag li des bari na li des te ñu war koo def ci wàllu organiser ko bari na boo ñi nga xam ne ni moom ay mutasammidoon la ñuy tuddee nga xam ne dañoo doon ci biir daara yi loolu boo ko jokkee da nga gis ne kon baax a baax a baax rax ci dolli it ñu baree bari ci ñoom nangu ñoo jëflanteeg jihaad rasmiya maanaam ñi nga xam ñooy sa ñooy saytu njàng ak jàngale ci réew mi nanguwuñu jëf li ndax seen njot rafetul ci ñoom xëy na am na fu ñu ko teg waaye ñu ci bari bari nanguwuñu jëf li loolu lépp nag kon day organisation bi dafay manqué. loolu nag li mu jur mooy ni ñuy ubbee école ni ñuy ubbee daara nga xam daanaka léegi euh, kum neex ak amul benn benn benn benn jiha benn mbooloo ma wala boog genn wàll goo xam ne nii. ñoom ñooy féetewoo di saytu ku bëgg a ubbi daara ak conditions yi nga ubbi ak daara ji na mu war a mel loolu amagut moo tax léegi ku neex rek ubbi fu la neexit ubbi mooy waral nga gis daara joo xam fañ koy ubbi dañuy dem boo xam kenn dëkkatu wala bâtiment boo xam ma nga fett fu nekk mu fett fa ba bëgg daanu nga xam seen borom dañ ko abandonné kenn nangatu faa dëkk wala bâtiment bu ñu tabax àggul amul yi bunt amul dara nga ñëw ubbi ko def fa daara ji dëkk fa ak mbooloom ay xale yu baree bari ñu ne ci conditions yi metti loolu defe naa ne bu fekkoon am nañ ñu koy saytu loolu duñ ko nangu ndax duñ nangu jël mbooloo teg leen ci situation yu mel noonu léeg-léeg nga gis koo xam ne tam benn barab lay am mën naa doon sox ma magasin magasin boo xam ne nii amul aération amul fenêtre amul dara nga ubbi ko dugal lu ma téeméeri xale ci biir la ci nekk ci biir di ci nekk ci biir loolu tam ku nekk xam na ne buñ ko doon toppatoo loolu manque d'organisation ci lay dugg manque d'organisation moo tax it maanaam ñu baree bari bu ñu demee ba échec ci wàllu métier ñëw na ci ñëw na ci ñëw na ci ñëw soppali ku nekk jàngalekat da nga gis koo xam day dem defi commerce bu commerce ba doxul mu perte ñëw mujj nag nga gis xëy gis ko mu ubbi daara ne ab jàngale alxuraan la da nga koo xam ne ni émigré day dem tukki tukki ba doxul nga xëy xëy gis ko mu ñëw ubbi daara ne man jàngalekat alxuraan la léeg-léeg gis koo xam tam profitar la maanaam koo xam ne nii moom day day profité situation yi rek xam na ne nit ñi xëy nañ war a xamee njàng ma xamuñ ko xale itam xamuñu dara nga ñëw mën naa am sax yow sa sa mokkal des na sag rafet na sa sa mën alxuraan des na lu bare bari nga ñëw ubbi ne damay ubbi daara di exploiter xale yi di exploiter seen si seen leen ci noo leen di jariñoo léeg-léeg am yu ci am ci biir yoo xam ne nii kenn du ko mën a tudd ci barab yu mel noonu yooyu yëpp nag kon ci manque d'organisation bi ci lay dellu yooyu nag buñ ci bëggoon tënk ay point dañu gis am na yeneen yu ci gën a fees mooy bokk na ci li tax li nga yore kenn du ko jox valeur te ci lay dellu mooy ni ngay exposer sa marchandise ku ne xam na ne boutique boutique boo ci duggee dafa am nooy tegee nooy ranger bagage yi ba ku ko gis sawar fee dugg bu fi duggee tam sawar fee jënd moo tax marchandise lu mu bari bari da nga koy génne partout di teg boo ko defee du génn noonu lu bari waaye mbir mi boo ko gaaree ba ëpp ba mu ëpp li ko soxla buñ ko li ngay maanaam li ñu soxla boo tegee lu ëpp rek mu daanu maanaam xiimam valeur am day daanu buñ ci joxoon misaal ne la lu mel ni or ak ak jamaa bokk na ci marchandise yi gën a seer ci àdduna bi waaye tey fi ne li muy seer seer boo ko jëloon def koy saam teg ko ci layu dem ci marché ba naan ay wa or ay wa jamaa da gis ku la ne sëñ bi xanaa amoo ñaari saam juróom maanaam prix bi dee daal di daanu kon li ñuy wax a demande loolu il faut ñu bàyyi ko xel il ci ne nit ñi buñ leen buñ leen buñ leen ardoo buñ leen exposé lu ëpp ci lu ñu soxla day daane valeur li ñu yor te loolu dafay am ci daare waxoon nañ ko léegi mooy ñu koy ubbi ubbi gi bari na lool lool te du tege ci yoon bu ko defee dañuy dem ba dañu jàpp ni ñii ñu amul fu ñu jëm rek la dootuñu leen jox xiima bi leen war a jox lu ma ñetti at ci gannaaw dañoo seetaan naa ci benn télévision loo xam ba léegi dafay bàyyi jeex ci man ma di ko xalaat jamono yu mel nii jamono yu koor la ñu dajale ay way waylaago ñu rang ci benn commune moo ko doon def benn commune Sénégal moo ko doon def ci biir waylaago yi am na ay jàngalekat alxuraan ñu ne léegi kat mais commune bi day jox ay ndimbal way laago yi ak jàngalekat alxuraan yi xanaa kon léegi kañ la jàngal alxuraan nekk laago bañ leen di booleeg way laago yi kenn xeebul way laago yi waaye ñun ñun duñu duñu ay way laago wax dëgg yàlla kon xëy na loolu maanaam ñun ñoo ko nangu maanaam ñu ci yëngutu ñoo ko nangu bañ leen di booleeg ñi nga xam ne ni bokku ñoom situation ci lu mel noonu loolu day am lu baree bari nga gis ne te lañ lay jox du doon lu am solo nag fi ne maanaam mën naa am ñaari kiloy yu suukar benn kilo tàndarma de léegi du maanaam loo xam ne daal wax dëgg yàlla lañ lay jox ak par rapport nañ lay jëfandikoo eh, day day wuute lool. nga gisit maanaam li ñuy wax ONG nga gis ni ñuy exploité nit ñi yow bu ONG boo xam ne nii at ba benn benn benn repas la lay jox maanaam benn ndog la lay jox ba noppi ñëw filme la wërale àddina bi. becc benn dog te loolu ñun dañ koy nangu loolu lépp ñu ma ñàkk organisation suñu organisation ak ni ñuy gaarale mbir yi moo tax nit ñi maanaam li ñu war a jox ci xiima duñ ñu ko jox kon loolu nag ku nekk da nga xool la nga xam ne ni moo la ca war nga xool ko bu yàgg mag ñi jàngaloon nañ ñu ne xam dañ koy fekki waaye du fekkee li nga yor muy xam-xam toog ñu fekk si la waaye bu ko yóbbu di fekki ña ngi koy jox buñ jëlee misaal ci sëñ bi radiyallahu anhu ku nekk xam na ne bi ak ci ak nekkam mënoon naa dem tànn ñi gën a mokkal alxuraan ci àddina bi dax ko jàngale indi ko dugal leen këram ñu koy jàngalal ak njabootam ci façon bu bëgg waaye loolu nangu koom daan jël ak njabootam yëpp da leen a jëloon yóbbu leen ci daara yi ñu fekk ca borom daare yi fañ nekk ñu baree bari ñu mokkale fa fa alxuraan jàngee fa fa alxuraan te ba léegi loolu mi ngi am waaye boo gisee léegi ñun niñ doxalee ba tax léegi maanaam képp koo xam ne nii xool nga sa gaf xool nga sa nafa mu diis rek léegi njëkk a xalaat mooy demal wutal ma jàngal ndax bu defee ñu di wutal benn indi la nga def ko ci sa kër. am na ku ma ci basi nett lu xaw a yéem wax dëgg yàlla koo xam ne nii ku mel lu mel noonu ko daloon nee na patron maanaam ki ko jël bu amee gan. neen day génn ko ah man damaa damaa jël benn jàng loo xam moom laa jël sama xel daal neen ci maanaam maanaam maanaam balcon bi ne ko diw mu ne mu ne ko taxawal foofu waa xool la mu génn waa ji ko mu laa jël mu may jàngal loolu nag wax dëgg yàlla yow mu yor xam-xam boo ko wayafalee bañ àgg la foofu war ngaa xoolaat sa bopp loolu maa ngi doon organisation ñu lay dugg maanaam dañoo nasuwul kon léeg-léeg gis koo xam ne ni dañ koy yóbbu ci barab borom alal yóbbu ko ci barab defar këram ba mu baax mu jël la ne la di ma jàngal alxuraan boo xëyee oto ba lay bu déparé oto ba ca garage ba dañ ubbil nga toog fa xale yi ni yaa leen di jàngal duñ la jox sax maanaam duñ la jox logement bu baax jox barab boo xam sax mën nga faa jàng xëy na loolu nag mi ngi waaye mi ngi am ba léegi te mën nga faa def ay at yu baree bari ñoom sax duñ la xam far sëriñ lañ lay wooye wala ustaas maanaam maanaam bu ñu la jéem a xam sax nga xam ne loolu joxuñ la benn valeur te yaa ko def léeg-léegi sax benn benn soxna yeeg ak ñi nga xam ne nii ay caaxaankat lañ bu ñu bëggee tooñ dañaan xaar ma dem tooñ sëriñ wala ma dem tooñ ustaas ñu wax a wax ba kii te bu weer dee lañ lay jox daanaka du la mën a fajal dara loolu lépp nag kon ci wax dëgg yàlla lu ñu war a mën a xoolaat la ci ne li ñu yor nan xam valeur am ko defee ku ko soxla nanu fekk si bu ñu fekk si ñu am conditions yi ñuy teg yoo xam ne nii danañ nosu ba ku fi ñëw da nga xam ne ñun li ñuy def teg nañ ko ci aw yoon loolu defe naa ne lu banque ci daara yi la kon buñ ko doon tënk dañ naan ci wàllum nos xalaatkat yu mu bari dañoo wax ne caaxaan yuñ nos moom man dëgg guñ nosut li nga yor lu mu baax baax baax baax boo ko organisé wu teg ko ci yoon da nga gis koo xam ne ay caaxaan dong la yor ko teg ko ci yoon ñëw di la jëfandikoo loolu daf ci am kon nag loolu defe naa ne moom solution bi yomb na mooy ku nekk ci ñun te ci yëngatu ci daara yi nga xoolaat sa bopp ku nekk ci ñun di yëngatu ci daara nga xoolaat sa bopp yii ñu wax ak yeneen yi nga xam ne ni yaa ngi koy def wala yaa ngi koy xool ci sa biir doxalin nga jéem ko soppi te loo mën nag ci yeeñ a nga nekkal nga mën leen caayee ak it nag xool règlement ak luwaay yi nga xam moo tënk njàng jàngale ci réew mi ñu xool lu ñuy moom ndax danañ tënk gi ciy tënku danañu may ñu mën a sàkku suñuy ak suñuy yelleef bu fekkee tënku nañ ci buñ ci tënkuwul nag dana jafe lool nga mën a sàkku say ak sa yelleef ci biir dëkk bi bi ci topp kon mooy mooy jëm ci wàllum financement yi xaalis bii doxal daara dañuy wax ne alal xaalis mooy siddit gi yor dund siddit gi yor dund dañuy wax mooy xaalis mooy dundal daal mooy doxal moo tax lépp bépp réforme booy def wala boog maanaam defar goo bëgg a jublu il faut que nga xool fan ngay sukkandiku ba mën a financé li nga bëgg def ndax soo ko deful ñaare la ngay def ak dundam mën naa bañ a yàgg waaye tam dañuy wax ne képp ku lay financé day am sañ-sañu dugal loxoom dugal kàddoom ci la ngay def mooy man yunfiq yusrif kon nag bu ñu xoolee loolu nag nga xam ne kon alal mooy siddit gi yor dund te ki la koy joxit ñaari day am kàddu ci la ngay def ci li ñuy mën a gisee kon nag ñun li ñuy jànkonteel ci biir système éducatif Sénégal bi yëpp si faama jafe-jafe yi ci nekk waaye nag rawat na ci daara ndax boo ñëwee ci daara maanaam xaalis bu ñu koy doxalee néew na ba jéggi dayam ñi ci nekk itam daanaka amuñu yenn yu leen di pousse leen dëgëral ci wàllu xaalis yoo xam dana tax ñu sawar ci métier mi moo tax ñu bare bari métier mu jàngal alxuraan neexu leen ndax lañ cee jëlee da leen dul mën a fajal seeni soxla waaye itam benn benn ci yi nga xam ne nii dañoo yor xaalis te bokk ñoo ñun ay gisin mën sax bokk ñun ay réew léeg dañ ñëw di exploiter néew doole gi ñu doole jàngat alxuraan néew gi doole ñëw financé la bu la financé nag dañuy dugal seen kàddu ci biir ba dañ laan dugalal lii bàyyi lii del doxal del bàyyi loolu mooy waral la léegi yéen benn benn ci daara yi di génne ñoo xam ne nii seen melokaan bu ñu génnee du bokk ak niñ meloon bañ fay dugg wala boog du bokk ak na nga xam noonu la seen seen seen seen seen environnement mel ci wàllu xel xalaat dafay soppiku ndax ñooñu kon comme ñooy financé dañu am seen kàddu gu ñu bëgg dugal ci biir te financement bi defuñ ko ngir yàlla dafa am seen beneen xalaat ak yenn yëg-yëg ñu bëgg a tasaare bëgg koo jaar fa gis ni ñii néew nañ doole te boo leen financé dañ da nga mën a jaar foofu dugal say jàll la say xalaat ñu def ko loolu mooy war gis léeg gis koo xam ne daanaka la muy jàngale xëy na du daare waaye école yeeg yëpp da ci am la muy jàng lépp daanaka programme bépp mu ngi koy jële ci biti ci lay sukkandiku ndax moom ci boobu sax far mënta tegal boppam lu ko am solo kon nag loolu wàllum financement bi tam dañuy gis ne buñ ci taxawul ngir daara yi ñu mën ko jubanti dana jafe lool ci problème yi gën a posé wu ci problème daara yi ci la bokk te daanaka li indi coow lépp daanaka loolu la mooy njàmbat li mooy dañoo néew doole te duñu dimbale waaye nag ñun tam doon war a xoolal suñu bopp ndax ubbi daara tam nekkul force nekkul ne par force da war a ubbi daara sama jur doon jàngale alxuraan xëy na conditions yi ñu ko doon jàngale man na ko man mënuma loola tekku ni par force da ngaa war a ñëw ubbi daara ji kon ki nga xam ne leer na ko ne moom daara ji amut man-manu xëy na kon buñ ci doon tënk dañuy wax ne kon jafe-jafe boo xam ne nii li li ñu ci war dëgg-dëgg mooy ñu xool ne maanaam njàngum alxuraan mi jàpp ne kenn waru koo fayal dañ ko war a def maanaam gratuitement nga xam doo kenn doo ci laaj dara loolu buñ dee topp dañuy gis ne amutoon bu njëkk kenn mësta jàngale gratuitement xëy na kay niñ lay niñ lay fayee mooy wuute sunu mag ñi buñ daan jàng daawuñu laaj fay par weer waaye nag dañ daan nekk ci àll bi yor ay tool tool yooyu bu nawet jotee dañuy bay buñ bayee xale yi li ñuy dundee ñoom ñoo koy bay kër gi tam boobu dañ koy sàkket defar néegu ñax bu bu nawet wàccee xale yi ñooy defar kër gi sàkket ko defaraat néeg yi dëkk ci ba nawet jotaat ñu dem ñu dem bayiwaat kon loola duñ la laaj xaalis waaye nag lii doxal kër gi ak li koy dundal yaa koy liggéey te loolu rek mooy fay gi loolu loolu rek mooy fay kon jur ñu ci wut bénéfice maanaam liggéey bi dëgg-dëgg ñun xidma bi ñu ci war a def mooy duñ ci wut bénéfice waaye nag nañ xool li nga xam ne nii mooy doxal daara ji tey misaal ñu ne lañ lañ ci war a financer lépp bu dee courant la ñuy fay bu dee ndox la ñuy fay bu dee dëkkuwaay dañ koy luyee lépp ñu xool ko dund bi ñaata la ak yi ci aj yëpp bu ñu ko xoolee ba noppi yow nga séddale ko dong yi ne leen ku nekk ñi ngay joxe bu ko yow mën nga caa bañ a wut bénéfice ñàkk gi ñàkk wut bénéfice dëkk doy na sëkk xidma booy defal askan waaye nag su da nga ne damay jàng xam ci laaj dara ba noppi wëlbatiku di ko jàmban nag loolu dam da ngay yow yaa war xoolaat sa bopp kon loolu ci ci ci tënk daal suñ suñ waxtaan benn la ci yi nga xam ne nii gis nañ ne war si na ko mën noxtaane ci daara yi bu ñuy bàyyi xel ni dañoo dañoo gën a dañoo gën a concentré wu ci jafe-jafe yi ndax ku nekk xam na ne am na avantage yu bëree bëri yi ci nekk daal alxuraan yoo xam ne si war na ci mën loolu te loolu mu ëpp solo ndax mooy tax mu gën dox ci kanam loolu moo tax tudduñu avantage yu bëri yi nga xam ne am na ci daara kon nag xëy na bu koy waxtaan tam li ci dëgg-dëgg mooy alerte wane ne daal lii nga xam benn la ci kene yi nga xam ne ni moo taamu moo taawu suñu ndono ñun am na ci kene yoo xam ne ni mi ngi commencé di fet te buñ ko buñ ko jubbantu maanaam rekk si wuñ ko defaraatuñ ko mën naa am mu daanu kon nag foofu xëy na liñ ciy tëje mooy ñi nga xam ne nii daal seen yëg-yëg mi ngi dund ñu gën leen a soññi ñu gën a jëlaat seen i responsabilité suñ digganteeg ndono yi nga xam moo ne ci suñuy loxo te kat yéen si wax na bu yàgg ni way gëm yi ni ñu war a mel seen cofanteeg seen soppanteeg seen yërëmante dañoo war a mel ne wenn yaram yaram tey baaraam dong bu doon metti te kenn fajtalu ko bu yàggee yaram yépp da koy ñëw mel ne day solidarité moom ku jàngal alxuraan ab jullit rek ci tënk fu mu nekk nekk ci ay jafe-jafe ay moroomi jullitam dañoo waroon daal di taxaw jafe ñu fajtal ko waaye buñ ko fajtalu nag bu yàggee jullit yëpp lay mujj laal te loolu moo am tey bari na lu ñuy xeebat ci lislaam ak ñuy attaqué lislaam ak di ci wax lu bare bari ñu ngi jaar ci bunt boobu di ko ci dugal te loolu seetaan ku jullit yi seetaan la waaye jullit ku nekk xam na ne li ñu yor ci alal ak li ñu yor ci man-man xajut ci daara xajut ci soxlay jullit yi kon xëy na la kon bu ñu xale xoolee yonent wax na ci xadis tam bu yàgg ne bokk na ci li nga xam ne nii lu baax la loo xam ne nit ki bu ko defee fay ga da koy fekk sax bu faatoo yu bari la bokk na ci xam-xam boo xam ne da koo jàngale nga jóge fi bàyyi ko fi nit di ko jëfandikoo wala téere yoo xam ne da nga ko kaamin wala wala wala doom ju baax da nga koo yar jóge fi bàyyi ko mu lay ñaanal wala kaamin boo xam koo bind bàyyi ko fi nit ñi di jàng alxuraan wala jàkka joo xam ko tabax bàyyi ko fi nit julli waaye itam kër goo xam ne da nga ko tabax ko fi ngir ñi nga xam ne nii am nañ tumuraanke dëkk dëkk ñu di ci dëkk wala boog sax yu mel noonu ndox wala yu baree bari la yooyu kon boo ko defee waaye lañ ci gën yitteel fii mooy kër goo xam da nga koo def ne ne taxawal naa ko ci yoonu yàlla ñu koy jëfandikoo ci yoonu yàlla loolu nga ne lu mag a mag ci biir loo xam ne nii jullit def naa ne waruñ ko ñu bare bari bàyyi wuñ ko xel te man si na ko jariñoo te ibnu sabil fii bu ko waxee nag jàngkat yi dañ ci ñi dongoy daar yi dañ ciy dugg jirim yi dugg ci faqara maanaam ñàkk ñeeg miskin yëpp dañuy dugg ci biir loolu kon lu am solo la nit ki tabax kër goo xam da ngay tabax ma mel ne war a mel nga ne jox naa ko daara ci misaal wala boog ku am daara te amagoo man manu am foo nekk mën nga caa nekk ba da ngay am foo nekk boobu jigéen ne sa morom jël loolu defe naa ne lu ñu war a mën organiser la suñu biir loolu nag bu ñu ko xoolee te ak li ñu dal ñun nga xam tey bari na ñoo xam tey bàyyi nañ jàng te leen tax a bàyyi jàng du dara fu ñu nekk la ñu amut fu ñu nekk la ñu am loolu xam nañ ci lu bëree bari ñoo xam ne nii jàng leen taxoon a jóg ñu dem am yàgg ñu xëy xëy bàyyi ndax dañoo xool-xool amuñ fu ñu mën a nekk te mënuñu tëdd ci mbedd mi ñu bàyyi te moo ne bu ñu doon xool tey kër yi nga xam dañ koo tabax ba mel na mu war a mel ñu tëj ko nga xam na nga tabax mel na war nga tëj ko ba mu xëy màgg ràpp nit di ci mas dëkk kenn xamul nu mu toll loolu nag kon ci dafay delluwaat ci rek ñun gën a nos ci biir jullit yi gën a nosu xëy na loolu mooy solos waxtaan wi ñun gën a mën a nosoo daal ba daare alxuraan yi nga xam dafa bokk suñu ndono ñu koy sàmme ba rëq-rëq yu bari yi ci nekk yëpp lu mën koo bokk saafara loolu nag du liggéey kenn nit du liggéey ñaar nit waaye liggéeyu mbooloom lépp la liggéey jullit yëpp la engagé yëpp koo xam tam yitteel maanaam doomu aadama ak nit yi yitteel na la mën na la engagé loolu daal suñu waxtaan moom lañ bëggoon a tënk di sant di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah akamta ya akamul baaxi